seen mbokk Idrissa Gueye di président COSAFO coordination sénégalaise des acteurs du pèlerinage et de la Umra di ab tansiqu sénégali li nachata il hajj wal umra moo ñëw wuutu fi ñi mu ko bokkal muy mbooleem ñi nga xam ni ñoo nekk ci biir COSAFO di góor di jigéen wuutu fi communauté di xaj yëpp ñëw ngir fàttali boppam fàttali bokk yi yowmul arafa yowmul arafa nag muy bis bi nga xam ne mooy bisu arafa xam ngeen ni voyagiste yi ak jullit yi daan dem te waxtu wi demuñu ñoom ñëpp tey seen xol ma nga ca dëkk bu tedd boobule ma nga la yonent bi ne woon alxajju arafa tey xel yépp ma nga arafa moo taxoon ñu ni lu ñëw fàttali sunu bopp fàttali leen bisu arafa boobu di altine ñuy ñaan bu 14 heures jotee bépp jullit bépp koo xam ni fas yéene woon nga dem képp koo xam ni demoon nga képp koo xam ni demagul fu jullit mën a nekk ñuy ñaan waa sapo ñu ngi ànd di ñaan di fàttali nit ñu bés boobu ba ñu demee ba 14 heures nga xam ni dina fekk mbokk ya ya ya représenté jullit ya ña nga ca dëkk boobule ña nga ca Arafa muy waa Makkatal Mukarram ña nga xam ne ñooy organisé ña fa nekk waxtu woowu ñun fii ñu toog ci Sénégal. ci sunu biir jàkka wala sunu biir daara wala sunu biir bureau wala sunu biir néeg fu ñu mën a nekk ñuy ñaan bu 14 heures jotee ku julli tisbaar donte benn juróomi minute la nga concentré wu toog sa xel li yar ci arafa nga wax laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lahu almulk wa lahu alhamdu yuxyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shayin qadir nga ñaan yàlla mbas mi yàlla jële ko fi ba ñu mën a delluwaat foofule nga fàttaliku nag ni tey jii la bisu arafa ñaanal itam adduna bi waaye nga ñaanal itam fa tabarakallahu communauté di haj ba yàlla dindi lii waaye ñu ñaan nag ki nga xam ne ndokkeel ko ci muy ki yàlla dogal mu jiite pèlerinage muy professeur Abdoul Aziz ak ñi mu ko àndal ñoon docteur Khadim Silla ñoon comme euh, Ousmane Ndoye ak ñi mu ko seqal ñëpp ak mboolem voyagiste yi képp koo xam ni yaa ngi yëngatu ci aj makka mbo fu mu mën a doon ñoo ngi leen ci ndokkeel di leen ci masawu di leen ci ñaanal di ñaan ñun ñëpp nañu yónni suñu xel yóbbu sunu xol waxtu wii nga xam ne 14 heures bu jotee ci Sénégal nga yóbbu sa xol ak sa xel yëpp makkatal mukarram ci arafa ja nga xam ni waxtu wi tembe yaa nga fanaan toog di tudd yàlla di jàng alquran di def salaatu ala nabi ñu bëgg ñëpp nag ñëpp ànd na doo def loolu ñaan yàlla itam yàlla def jàmm ci adduna bi yàlla def jàmm ci réew mi ndax saa yu nu masaana nekk arafa daan nañ fàttali ko Sénégal ñaanal ko ñaanal ki yàlla dogal mu jiite réew mi waxtu wii ñuy waxee yàlla dolli jàmmal ko dolli jàmm Sénégal dëppale xol yi dindi fitna yi yii yii saxaar yëpp yàlla na ko yàlla fay kon waxtu woowu daal bu jotee maa ngi fàttali sama bopp di fàttali ñëpp ci turu COSAPO ñi nga xam ni yàlla dogal na ñu jiite la ni ma ma nekk seen président yëkkati kàddu ci seen pour ñun ñëpp altine 14 heures incha allahu taala bu nu jullee tisbaar wala ñi nga xam ni 14 heures et la ñuy julli diggante 14 heures boobu ba 14 heures et quart bi ñuy julli rek ñu concentré wu rek nekk arafa tudd yàlla fa ñu ne tudd yàlla ci sunu néeg ya tudd yàlla ci jàkka ya tudd yàlla ci jumaa ya tudd yàlla ci sunu bureau ba ñu toog sax quatorze heures rek ñu ni tekk teg lépp toog jàkkaarloog suñu borom naan ko la ilaha illa allah wahdahu laa sharika lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mbokk yi message bii la COSAPO jëloon ni nanu ko génne ànd ko communauté di xaj yëpp fàttali ko sunu bopp fàttali ko jullit yi altine mooy bisu Arafat nañu toog ñu jàng al alquran nañu bàyyi xel itam ñu ci woor gi nga xam ni mën nañu ko ci ñu woor ko muy muy lu am solo saraxe yi ñu def ko ci lépp lu ñu daan def fa tabarakallahu ñu def ko saraxe jàng alquran euh, fa tabarakallahu woor gi nag su su koor gi ñu bàyyi ko ci xel ndax ña nga xam ni tey jii ña nga fa mu néew mu bëri rek ñoo représenté jullit yëpp te fii mu nekk nag xol yi xel yi xalaat yi lépp ma nga bërëb bu tedd boobu ndax li yonent bi ni képp koo xam ne aj nga tofawuloo meruloo xuloowuloo rajaa min dunubi ka yow mi wala datu umm di nga dellu set wicc ci bàkkaar mel na liir buy soog a juddu kon loolu nag la ko saapoo yéene ñëpp moo tax mu yëkkati message bi jàllale ko jaarale ko ci suñu loxo ci suñu kaddu pour ñu wax ko ak jullit yëpp ñaanal suñu euh, délégué général yàlla ko yàlla dolli jàppale ñaanal ministre des affaires étrangères bi nga xam ni mooy kilifa kër googule ñaanal ki nga xam ni moom la yàlla dogal mu jël cër bi jox ko muy son excellence président Macky ak mboolem ñi koy jàppale ak jàmmu Sénégal yàlla na yàlla tàppe xol yëpp ci barke yowmul arafa bii yàlla na yàlla tàppe xol yëpp ci barke bésu arafa bii yàlla na yàlla tàppe xol yëpp ci barke bésu arafa bii yàlla na fi yàlla jële mbas mi yàlla fi yàlla jële mbas mi jële fi leneen lu nuroog mbas mi yàlla na yàlla defar xol yi defar xel yi defar xalaat yi ba ñun ñëpp ñuy wax lu baax di yéenante lu baax di defalante lu baax laa yuminu ahadukum xata yuhiba li axi maa yuhibu li nafsi yàlla ko yàlla defal ngëm yàlla kenn du mat lu dul la nga yéene sa bopp moom nga yéene sa moroom mbokk yi Sénégal la ñu am nañu rafetal suñuy kàddu nañu rafetal suñuy jëflante nañu ñaan ci bisu arafa bii yàlla dolli fi dal dolli fi jàmm dolli ko ci àdduna bi yëpp seen mbokku mbokk sa Gay di président COSAPO moo yëkkatewoon kàddu yi ci turu communauté di xaj yëpp di jéggalu nag di ñaan yàlla ñu yàlla boole jéggal ba waxtu wi déwén yàlla ñu fekk ca bërëb bu tedd ba muy makkatal mukarram wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu